maa ngi ñëw tey ci fi situation bi feebar bi toll di remercier encore président de la république ci wax ji nga xam ne bii wax na ko te dara jublu ci lenn pour me protéger ñu ci contact yi nga xam ne tey jii mesures yi nga xam moom jël na ko pour que kenn ku ci nekk si wàllu boppam bu ko respecté def ko nu mu ko war a defee maladie bi nu mu waroon a dugg ci biir nit ñi foog naa du ko def moo mu jël mesure yooyu di ko ci sant di ko ci gërëm te di ñaax tamit ñëpp ñu jéem a nekk benn jéem a ànd jéem a liggéey ci loolu pour que feebar bi nga xam ne tey jii nekk nañu réalité wax dëgg neex yàlla mu mën a dugg ci mën a dugg carrément ci Sénégal nu mu far a duggee. en tout cas di wax tamit ni ñun waa jur Diourbel ànd nañ ko ak préfet pour mesure yi nga xam ne président de la République jël na ko ak recommandation yi xam ne jël na ko ñu ànd ci. vraiment pour mën ko respecter ci biir loolu nag ñu ngi invité population bi yëpp xam lii ñuy def ñoom lañ ko defal ñu jàpp ci ñun ñëpp ñu liggéey ci nekk benn jàppante ba nga xam ni feebar bi nga xam moom la am ñu ngi sant yàlla amaguñu kaa mais yàlla dimbali ñu ba ba loolu lépp mën na fi mën a jóge kon di gërëm ñi nga xam ni wax dëgg neex yàlla ñu ngi ànd ak man ci mairie bi mooy bureau municipal bi ak conseil ba ñoom ñu jàppale ñu. ba ñu mën jël fukki millions jox ko ci ay matériel nga xamné ay lavoir la ak ay gel ak matériel nga xam bis buñ ko amé dinañu mëna permettre ba nit ñi dinañu mëna euh moytu fièvre bi ñu mën ko jox population yi ba ñom ñu mën ko jël. en tout cas di ñaax population encore une fois de plus que directive yi nga xam mom le président jël. mesures yi nga xam ne moom la président jël préfet di ko di ko doxal di ci déggoo ak ñun di ci déggoo encore ak médecin chef bi ñi ñaan yàlla ngir yàlla waru suul yi waa ju ñun waa Diourbel rawatina waa Diourbel Sénégal ñu jël ko. état d'urgence ñu respecté ko déplacement yi nga xam ni amul solo trop ñu wàññi ko élèves yi nga xam tamit dañ leen génn ci école yi ñu ba ñu tey doom yi ndax la fait que ñu génn école xale yi ñu bàyyi leen ci ñuy fudal ci mbedd mi kon amatul sens. kon kenn ku ne na góor góorgóorlu sa doom nga téye ko sa biir kër laa dina mën tax xale aussi duñu mën a propager feebar bi. daara yi aussi vraiment ñoom tamit ñu ñu ngi li nga waxtaan ak ñoom bu baax ñoom ñëpp nañ fa gën dem pour mën sensibiliser yëpp bien entendu encore lépp ci responsabilité préfet la ak médecin sanitaire parce que maire population la fi nekkal waaye tamit état aussi moom moo yor réew mi jaale ko ci loxo préfet en tout cas ñun ñu ñu nekk nii benn ñun ñett ñëpp ñu ngi ànd liggéey pour liggéey waa Diourbel lancer message bi encore di di di waxaat population yëpp nañu déglu préfet déglu directive yi déglu médecin chef bi lépp lu ñuy def seen njariñ moo koy tax ñu dem dëkk Diourbel nag koo xam-xam ne dëkk ñuy tukkikat lañu képp nga xam ne jóge nga ci dëkk yi nga xam ne dafa am risque ñu ngi lay ñaan ngir yàlla war a suuli mbaa nga oo médecin chef bi mbaa nga oo préfet mbaa nga oo ñu ñun ñu me ñu boole leen ñu leen war a boole ñu xool leen ndax loolu dara new ci day tax rek nga mën a protéger ndax képp nga xam ni am nga feebar bi ki ngay njëkk a wàll sa doom la sa papa sa yaay ak sa njaboot. kon bu ñu waree ñëw fii ñu xool leen ba pare xam ne dara dalu leen ñu mën dem mbaa xool leen kooku dañ leen wax ñu protéger seen bopp ba pare kon ñu ngi leen di invité mi ñu gën a ñëw ndax loolu dinañ gën a yombal liggéey bi liggéey bi nag pour mu gën a yomb population ñu ñoo ci war a jàpp gëm ko xam ne feebar bi réellement am na waaye bi ñu àndee nekk benn mën nañoo xeex virus bi ensemble nous vaincrons tey lii nga xam ne moom la fi daje fi mu jóge mooy euh, commune Diourbel donc ñu nekk loo xam mu nekk act boo xam ne dañ koy rafetlu ndaxte tamit askan wi ñoo leen fal donc mais ñoom comprendre nañ ne tey askan moo leen fal kon su dara amee war nañ mën a taxaw ci kanam askan wi jàppale leen donc foo naa ne tey jii mairie bu Diourbel moo génnee ci budget xam naa ne valeur 10 millions pour jàppale askanu commune Diourbel kon loolu foo naa ne euh, su amee ah gis-gisu maire bi la xam na ne tey ji askan wi moo ko fi teg jël na li nga xam ne mooy ressources yi jàppalewaat leen ko kon loolu foo naa du ñu def lu dul ko rafetlu mu nekk exemple boo xam ne yaakaar maire yi ñu ngi koy def mais ñu gën koo yaakaar naa su ko defee kenn ku nekk jàpp si lam joxit ay jumtuwaay la pour jëm si askan wi mais yemul foofu tamit ndax jàppale na ñi nga xam ne ñooy faj si ay jumtukaay mu war koo teg peut su ci loxo district sanitaire bi nga xam ne moom mooy médecin chef bi yore lépp luy wàllu wér-gu-yaram ci biir département de Diourbel kon loolu tamit muy ñaari fànn boo xam ne jàpp na d'abord ci askan mais jàppal na également administration à travers euh, district sanitaire bu bu Diourbel kon dañ koy rafet lu baax a baax di ñaan rek askan wi tamit la fa demit ñu jëm koo jëfandikoo ndax joxe jumtukaay jëfandikoo moo ci topp suñ ko defee am nañ yaakaar ne suñu borom mun nañ koo teel kii beneen bi nag muy beneen matuwaay ci fagaru bi mooy wàññi ndaje yu bari yi wàññi déplacement yi nga xam ne aussi mënu ne ndaje yu bari nag suñuy wax dañuy ñaax ñëpp ñu sàmmonte ñoom mais nag ginnaaw ñaax bi tamit administration dina jël matuwaayam ba lool moom du amee ci biir commune Diourbel wala ci biir département Diourbel su amee tamit ñekka defit la yoon wax ñu sàmmante kook ñoom mais ñuy ñaax rek askan wi ñu sàmmoon toog yi nga xamne ne tey jii mooy dogal ñu xamne seenum njëriñ la donc lool moy li nga xamne ne tey jii fi dajé di remercier encore une fois di gërëm bu baax le maire ci geste bi nga xamne aussi def nako muy geste bo xamne euh xamna lan mo tax ñu tek ko fi jafé nako li dess nak di ñaan suñu borom li nga xamne ne lañu jaakar lool suñu borom génné ko fi ci fan yu gatt su ko defee tamit ñu mëna reprendre encore une fois la vie normale au niveau de l'État du Sénégal